cant boo xam ne fàttewuma sama bopp muy dëkk dëkk yàlla cant ka doon sama bopp. lawul hamdu walijaat. boo xam ne li neex nag mooy boo déggee ba ñëw àdduna doo nga xam say taalibe wala ngay wuti taalibe wala woo sëriñ. lawul hamdu walijaat. Seydou Hadji Malick Cheikh na Tidiane boole na ko ñu koy boole ca alamul arwaax da ngay ñëw rek topp Mor boo ko topp doo ko yëg boo ko bañ a danaa bokkul ci moom moo tax bokkul ci. lawul hamdu jurul jaaru booba jurul la jiital lil xasri dafa wax ni alhamdu cant cant yëpp la ko ñeel na yàlla wal ijaadu amal bi لو حضرني جاد جل جلاله انا يقولوا لي يا سايكتو واجنا نو تبريد yonent bi li ko wax alxuraan jàngalul yonent bi lu yonent bi Mustafa xam nga lu mel الميموار عندك سوني وسوني فيس لين يخاف يقول كتير من أفعال أكتيفة كم كل ما نتعلم دي كبير ده كوني هو وسيدنا محمد أكتيفة القرآن جل وعلا اقرأ بسم ربك أكتيفة كم بسم ربك ولا لا تحرك به لسانا قال تعالى نبي سيدنا محمد هو الواسط بين فهد الحقيقة والحقيقة لولا برضيته للمحلة جميع الموجودات ورجل عليه السلام ومقتل القرآن إن كتير من تلميذ بلا فنيك مجاتبات رسول الله مجاتبات رسول الله الفرح لكن شو لو الحمد بقدر والإجابة والإمداد قبل ما تجد من فضل المريد نقول جل جبال سيدنا ولولا لم تدر خليقة قدره محمد الأمين ولولاه نور البرزخ يبسيطنا محمد لم تدر نخم الخليقة الكرياتيري قدره درجة كرياتيري رب السماوات والأرض إيه الله mooy Seydina Mouhamad ñun waa Cheikhna Tidiane nag Cheikh yàlla nañu ko jox caabi jooju ci Faatiha ilma ñanaa lu waay mën a xaaraan xaaraan doo dem këram ba fekk fa di faadati ka min ka gi lay kër di faadati ka min ka gi lay kër kër Cheikh Tidiane lañ ko tooge fa lañ koy yàqee boo ca ñëwu doo ñam loo xaaraan xaaraan da ngay xaar doo dem فتح الله kuu ɗon cheikhu qawminere yallaka uppeyroro ɗi signa mahamad أكني من سيد لولا لتعجب كابتن مبتدلا من سيد كسان بو خامني لولا بربنا ما عبدنا خو سبحانه ما عرف الإله فلن كنت كندا لقورة فأحببت أن أعرف فتعرفت به ثم بي يلا دعوة nga boo bëggee nopp da ngay xaar yàlla présenté la boppam présenté la nit ñi doo sàlli Maodo soxla promotion déedéet yàlla moo présenté Maodo carrément moo tax Maodo jarul coono bëri gis bu nekk Maodo gis bu nekk Maodo déedéet Maodo ci ruux yi lañ koy bëgg. subhaanahu mawrifal ilaah. mos ngaa dugg ci cin. ñu jox la cin yoo xam ne xool dugg ci. am déet. waaye mos naa fekk fi ñu dugg si seen xol bëriwul la jumboon na nokkas na donge na sóoraale ajaana mami na ñu ngi koy publicité parce que doxul moo war a bind dox su ko publicité nga ne min seydin lawlaahu maa urifa ahmad tijaani lawlaahu maa urifa rasulullahi sallallahu alayhi wa min seydin ci bu ñu woon a moom ñun ñi maa urifa bu ñu xam kan mooy sunu min rahmatin muhdaatihi nabi Musaa nee na yowmal qiyaamati bu yàlla taxawee ci diggante di ngeen am gaa yi man dina bi rahmaani ngay jël ni déedéet rahmatu laay jël ñu ko innama ana rahmatun muudaatun lil kawni ida rahima allahu ibadahu yowma alqiyamati bismi rahmani abi rahimi fa innama ana shafau lahum bi kalimati rahmati ida qaala ana rahmatun muudaatun lil kawni sidi ma bataa wa man saati ñi def wér nga ni Seydina Muhammad seen san waaye wa man saati ñi ñëw ñëpp Seydina Muhammad seen san القديم ذي البقاء loolu nag boo bëggee nangu ko da ngay nangu ne xam ne yàllaay gën jox nga ne ko neex Seydina Muhammad a gën moo gënal yàlla xeet si yonent bi gën ñoo gënal yàlla xeet si Ahmad Tijaani ñoo gënal si naa Muhammad haqiqatul Muhammadiyya haqiqatul Ahmadiyya faatihina walaka ifadati gammika ilayka ihatati noori mutalsam moo gënal di salaatu yi fatiha salaatul fatihi moo gën def salaatu yi tariqa Tijaani moo ko doon ci tariqa yi ni ci diine alquran jëlee tariqa yëpp jëlee diine yëpp def ci biir jëlee salaatul faatiha jëlee salaatu yi jëlee tijaan yi jëlee tariqa yëpp def ci biir seen ensemble wala tout confrérie yi tariqa wala tijaan. akrim bi akrim bi min maajidi. boo naa këm tan min maajidi ca di tedd. mooy sayyidi kulli raakiin wa saajidi. sayyidi kulli raakiin képp ku musaru ko. أكرمني بالناس ولي خلنا اللي ما يرضي منهم وماشي منهم بيا قال أنا بيوا جنوا وتقول لك أكتر من جيش الملك تامور ما يلا تامور ولا أريد شيء آه آه أريد شيء يلا يلا بلا آمين يلا يلا نشكر آمين دوستي بي أخمي مم نجور ليلي ورا وخ انا نقول شبرك